laqal mosuma ah, aussi maa ngi ko fay seen. asik Madie Johnson dafay jékki-jékki rek nag disparaître. Mhm. Moussa Sow booy Pulo. Mhm. Ah, waaw aussi euh, soxna Ndaw. waaw euh, depuis USA. yaay booy Ndaw ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar. bëgg nañu ñëpp nabu. Mhm. ziyaar nañu ñëpp amuñu seen fay. léegi nag. Ngone. nabu. Fari. si tu as la joie au cœur Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Loo Penda. kër gi nag si tu es amoureux de le Si tu es amoureux de Penda, écris-le. Si tu es amoureux de ah, Penda, si tu es amoureux de Penda, si le bu ngeen bëggee revue bi tàccu leen bu ngeen bëggee revue bi tàccu leen bu ngeen bëggee revue bi bu ngeen bëggee revue bi bu ngeen bëggee revue bi tàccu leen clic bismillah ayca waaye arrêté leen seen affaire de bëggante bu la ma énervé waaye nag yéen a bëgg affaire de nobante nag yéen liggéey leen ngeen di bëggante yaa xoobaa kaay li jëm ci sa kër yàlla bokkul na Ndiaye. Eh, eh, eh. kaay fii sa xale yaa ngi bëggante. ñu war a bëggante bàyyi leen bëggante leen. mais mais xama xama xama li gën a métti. caméra na ko bu bi jël na na ko. loolu la enquête bi a leer. ñoo ngi koy enquête. nga xam ne may formé nag affaire yaa ngi dugg. ah waaw waaw ma ne ma ne ma ne xam nga léeg-léeg dangay xool ni rek bëgg ko ndam ko loolu yàlla da koy def. ñu <laughs> ñu ne gis bëgg yàlla moo koy def dafay mel ni man de bu ma xoolee Amadou Mame Diop dama koy bëgg <laughs> c'est naturel. combat waaw te ñoom assemblée nationale na koor nee nañu tey jii la ñu tànn tey jii ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey jii ci sama bés bii tey ci jeudi bii ci alxames gii ginnaaw àllarbay juuma xam nga lu ew assemblée nationale suppression wala déet bu HCCT bu CSE tey jii la incha allah assemblée dina jouer à l'arbitre yéen kay Sud Quotidien dina ko xamal ne la suppression des institutions musta efficace nii wala mu amee impact nii ci histoire politique institutionnelle du Sénégal benn professeur agrégé en droit moo ci joxub gis-gisam ma fàttali ne tey nag benn mbayeen la ñuy dalal fii man nag tey am naa problème nag ngoone ci sa plateau bi mbayeen ak Touré ñoo ma nar a séq Pape Ahmadou Mbaye le grand juriste ak euh, Cheikh Ousmane Touré Mani les échos Nabu li ngay liir neex na de man maa ngeen moytu fari ci kër gi. dafa dangereux. waaw booy bu dangereux la. <laughs> ok mm. ah waaw yow yow yow bi nga gisee fari yow. mu mm. woon di tuddee ko inspecteur fari war a woon a tiit. <laughs> tiitu ma woon ba léegi. ah deful woon déclic sa bopp. Mm. baax na man loolu décliqué na sama yaram bu yàgg a yàgg. Eh, ngoone xam naa la. tu ne collabores pas avec n'importe qui. non non non de la vie c'est pas le marabout ça c'est Dieu. et eh, yàlla doo de flairer les bonnes choses <laughs> affaire du double meurtre ca Pikine ñu dellu ca ak les échos mu ñëw ci charge yu diis retenu contre Nabou Leye mii et compagnie man nag billaahi barki Sëriñ Bamba mu dee Nabou mii Nabou mii li ñu koy xalaatal di ko tuumal Nabou mii maa nga ca ah, ay insécurité am na kay dans les relations amicales. lay lay Nabou Leye maa nay de waxuma la yow de yow de noonu meloo noonu de ñii nag liñ leen di toppee mooy assassinat acte de barbarie complicité de ces faits avocat ya ña ngi plaider en vain contrôle judiciaire pour Nabou Leye juge bi di évoqué ay faits graves ay risque de trouble à l'ordre public ak risque de subordination de témoins beneen bi mooy rationalisation des dépenses publiques Sonko euh, il fait des coupes sombres dans le budget 2024 loolee leen kay les moo ko wax ñëwal bu ñu dem ñëw ci observateur ma yër observateur ne mbiri Aziz Dabala bi bàyyil ma des ci ba tey na Nabou Leye mii bu Leye mii mu ngi gën a enfoncé wu rek nee na nag ndekete da doon wax ak ñi nga xamante ne moom la ñu jàpp ne ñoo faat Aziz Dabala mii ba 4 di du matin Ngoné Saliou yëgoon nga loolu yëg nga lépp lépp xam nga ko Ngoné la nga lépp lépp lépp lépp lépp Ngoné xam nga ko si ba ci chihuahua la demande d'expulsion de mii et l'expédition punitive qui a mal tourné yëngu ko danseuse poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat ak barbarie charge retenue contre les autres membres de la bande yooyu yëpp mu ngi ci biir yérekaay bi kii ne Diomaye ak Sonko mi wala Sonko ak Diomaye duo la waaye duo duo bu am plusieurs fronts observateur noonu la ko jàngate ginnaaw observateur ñu dem ci tribune mu ñëw ba tey ci mbiri euh, Aziz Dabala gi mu ne Naboulaye et yóbbu nañ leen euh, kaso kii mooy Lat Diop Lat nag da doon waaj dëkk bi Lat Diop ca AIBD lañu ko dëppee ne ko dellul ko wàññeekul. mbay dama toog mooy ñëw xaali mbay est-ce que mën nga toog kër ga <laughs> si daati mooy ñëw ñu ne ko dellul dellul dellul laat dellul retourne retourne retourne yaa ngi dégg. dellul convocation assemblée nationale bi tey la président Bassirou jomay Diakhar Faye fu mu nekk nii mu ne dafay tenter de convaincre selon le journal Tribune yéenekaay Le Soleil ñëw ci aphrodisiaque bi Nabucor pour femme à base de produits chimiques de drogue on appelle ça le tababa <laughs> c'est un danger intime. L'amour, le tabac. <laughs> Aphrodisiaque pour femmes, à base de produits chimiques. L'amour, <laughs> le tabac. c'est la drogue. Et Farid, regarde-moi le tabac. <laughs> C'est un danger intime. Ok Faut pas toucher au tabac. man de barki Serigne Bamba le regard détournement de de deniers publics ancien ministre des finance du budget moom atulee kaso la jëm de oh. Moustapha mi dafa nekk au au cœur daal au cœur Moustapha ba ba ba le record daal yéene kaay bi euh, noonu la ko waxee beneen bi mooy commissaire Keita yow ngoone dañ koo convoqué dikk. waaw demoon na mais day demaat tey ci 10 heures. kaay ma wax la bàyyil ma baral yëf yi nag nga ñamal ma ci tuuti. comme xam naa ne fu mu nekk nii moom avance avance avance yor bi ñëw ci disso yor yor bi ñëw ci dissolution bu CSE ak HCCT opposition bi ndax dina franchir le Rubicon en rejetant le projet laaj waa nga noonu sampo en tout cas député Amadou Ba nee na assemblée nationale amul benn compétence pour bloquer convocation session extraordinaire par le président de la république Ayib dafa yokk ci ne président sax nag moom il a strictement respecté article 63 bu constitution député Samba Dang ne bu député opposition yi bëggee ramer à contre courant ne le peuple bi ci boppam va se charger de les dégager ginnaaw gi mbiri Aziz Dabala gi ñu ne na bu lay et compagnie placé nañ leen sous mandat de dépôt lii nag lii nag lii nag ngoone saaliw lii nag lii nag ajaratu euh, nabu lii nag fari lii nag yàlla na ci yàlla muccal sans limite yàlla na sax na ci yàlla muccalaale mbooloo yu bari yàlla ci yàlla musal ñu fi parce que xam nga xam nga xam nga taw bu wicc wiccalee c'est pas grave boo tooyalul suuf torop mais wicc wiccal la tu vois bon bu xaw ndox bi xawee bari torop aussi ba jurum mënd boobu tamit garaaw la parce que mën na ku mënul fay mën na ci làpp ok bu àndee ngelaw bu bëri am bu àndee ngelaw bu bëri bon mën na yóbbaale ay nit ñu oyof même ngoonee ci wax ngelaw mën na ko ëff bu nekkee ba ba ba ba ça veut dire que bu fekkente ne taw bi mu ko gérer à ce certain temps ça va mais tsunami faru tsunami barki Serigne Bamba mooy la def ba waxoon rek na bu kor mag moom noo daje ca sama xarit la saa yi ma ko rombe ca bopp koo ñu kaas ba daf ma fay xaar ma may ko weccit hmm. weccit ba ci lay jënd kafe ci lay taal benn boroom après day kuul sama xarit la moroom ma ko mu ne ma mami non mu ne ma gis nga dafa am ñetti façon bàyyeeku yoo xam ne moom laa bëgg pour boo ko déggatee rek nga di ko identifier quoi. mu ne ko amul problème mu ne gis nga mbara tatatatatatatat mu ne ma mu ne garaawul boobu mu ne ma puus pas puus puus ba tey garaawul mu ne ma mais pâche pâche dara fa fekkee da lay rey waaye tsunami ku mu fekk itam ngay taxaw faatu nga fa yàllaahu moom tsunami tsunami nag amul amul PS tsunami amagu sax benn bokk yaakaar coow la bari na lool foofu waaye tsunami amagu fa tsunami amul Pastef tsunami amul sax parti démocratique sénégalais waaye léegi doo ngeen ma laaj tsunami fa laam taxawu ndakaaru te xam nga lii mooy lan page yéen a ngi ñëw dañu nekk seen bureau yi dañuy yéexal dañu leen di daax bàyyi li nga def. explique. billahi bu ma dalee yëngu ba yëngu sama bésu anniversaire ngeen xam ne man lu ma def ci àdduna man la neex nangu ma ne la tsunami bii ca taxawu la amee tsunami bii nag bu ngeen ko dee jàngat far yi Ngoné ak Nabou mooy page tu vois Khalifa Sall perdre na vingt cinq cadres yéenewu ko lii nag Khalifa Ababacar Sall yéenewu ma ko ko nag cinq cadres yi ko quitté départ yi dafa bari dafa bari dafa dami dafa bari torop démissionnaires yi mhm. dañoo refuser une coalition diggante Khalifa ak Benno Bokk Yaakaar ne nañ loolu jamais duñu ko nangu waa kon xanaa ngoon dafa amoon ay suspicion de kii collaboration wala saa lu déggoo ci dara amoo ci la leer <laughs> ci ngoon laay yëy fari yow na xamoo ci dara na bu yow na xamoo ci dara laajal ma internet yi ma xam ne sax ah waaw yéen kon kay bu ngeen defee noonu xaaral ma demaale kon àdduna amul solo libération ñëw ci toujours le double assassinat à Pikine Technopole mu ne dans les de l'enquête de la DIC Dame Ka Cissé témoigné na mu ne man daal dégg naa daal yuuxu détresse boo bëggee dégg dëgg euh, a ah, ba mi ba bala sant sœur de Aziz Dabala témoin mu ne Nabou Leye nee na ma ne Aziz kenn mënu woon ko jot te kenn mënu ko woon a gis retrait cinquante mille francs compte Wave Aziz Dabala trois mille francs du compte de Babacar Gano dans un multiservice de Guinaw Rail ngeen yaakaar ne lii rek doy na ci ay éléments mu ne son numéro géolo géolocalisé sur la scène de crime Omar Gueye euh, se défausse sur Ndës ses habits tachés de sang Mamadou Lamine Diaw dafa jóge ci lieu du crime sol jellaba euh, daal di jóge ci appartement wu Abdou Aziz Ba ak yenn détails yi nga xamante ne daal yéen kay libération comme d'habitude ñëw na ci source A ñëw ci le ministre Cheikh Tidiane Dièye dafa bind nag à la DCMP pour mu renoncer à son entente directe en faveur de Delta Avicas 24 heures plus tard successeur Cheikh Dièye di solliciter à son tour une entente direct mu ne daaray kocc daal moo am LONASE yéen kay ba noonu la ko waxee beneen cas nag de meurtre boo xam ne am na démb ci Tivaouane Peulh lër yi source du drame ceeb moom jar naa xeex ba rayante faat ba kenn di ci am ah lii tamit doy na waa réew mi nag lu dëgg nañ xoolaat jikkooy waay bu baax a baax on y va on y ñu dem ci direct news alerte sur le gaz Diomaye dafay espérer un repreneur pour le gisement de Yakaar Teranga lii moom xam naa ne xam nga ci dara yow Fari si si mu ne la quête d'un repreneur pour Yakaar Euh, selon le très réseauté Africa Intelligence mu ne au cœur des discussions ci diggante président bi ak ministre malaisien des affaires étrangères Mohamed Bin Haj Hassan lors de sa visite bi nga xamante ne amaloon na ko Dakaru ci mois de mai dernier pour mu compenser départ bu BP bi gouvernement bi clairement manifesté na intérêt pour Petronas compagnie pétrolière malaisienne mi nga xamante ne dafa active bu baax ci li nga xam ne mooy continent bi bés bi le jour ñëw ci austérité on parle là de la rationalisation euh, des dépenses publiques et puis démission collective chez Khalifa Sall ah il se passe un sale temps chez Khalifa Ababacar Sall point le quotidien le quotidien des solutions du HCCT et du CSE les députés fu mu nekk nii jàpp nañu seenub date te nag tey dinañu daje plénière incha allah ca assemblée euh, nationale ginnaaw gi enquête ñaari famille la jël teg ngoone kii kan la. kii nag kan la. ñoom ñaari Aminata yii. Mm. Mbengue Ndiaye ak Touré yéen kay enquête nee na ñaari destin la waaye benn influence Aminata Mbengue Ndiaye gardienne du temple socialiste. parcours marqué par la fidélité et l'ancrage local Aminata Touré technocrate rebelle toujours prête à rompre avec l'ordre établi pour défendre ay convictions ñoom ñaari Aminata yi daal ñoom la yéenekaay bi xëyee tey ci suba gi ginnaaw gi la foo ci rationalisation de ressources et des état bi naka la nar def ba serrer la ceinture réglementation usage consommable informatique appareil électronique ci bâtiment administratif yi déploiement énergie solaire au niveau également des édifices administratifs et techniques suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel récupération aux biens soustraits du patrimoine bâti bu état ak bu parc automobile yooyee ma Ousmane Sonko mii daal di ko cay toftal yaa ngi dégg bu leen neexee na mën ngeen jox Ngoné Sall mu signal leen autographe buxal point actu ñëw ci politique publique mu ne le duo déroule waaye le duo surprend reddition des comptes bi Lat Diop da nga doon dem ñu ne la dëppal interdiction de territoire nga am de sortie de territoire maanaam da am autorisation de rester sur le territoire mais <laughs> tu de sorti du territoire assemblée bi nag mu ngi tenir plénière am tey fisc bi Euh, ne lève pas son coude sur les entreprises foncier bi au cœur de la gestion du pouvoir justice projet de réforme lii daal tax na ñu ne ñaar ñi kii di président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son premier super ministre Ousmane Sonko toj sa mbaari mu naan tës tës ña ngay doxal ndax neex na ñi ñi neexut ñi ñi loolu itam c'est à l'appréciation de tout un chacun ginnaaw point actu euh, point actu pardon lii quotidien ñëw ci tas gi nu war a tas ba xam nan ko defam déet bu HCCT euh, ak bu CSE motivation yi nga xamante ne moom la ci chef de l'État am ay proposition yoo xam ne ça dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles ginnaaw gi L'As quotidien <laughs> doo sàcc pour romb bëgguñ ko xëtaale. <laughs> Eh, ah yow da fàtte bi nga bi fari boo nekkaan classe boo defaan eh, toj toj nu la sa maître daan dóore. Hmm? tendre par carte yow def nañ la ko wala. wala sauce. wala sauce. wala. front sur la table. front sur nag dama ci amoon technique. bu ma leeree ne tey jour dóore la. damay sol ñetti pile vert dugal benn ardoise si ginnaaw. boo dóoree damay def sàmbalaa naan nii rek yëguma ko sentiruma ko su ma ko sant <laughs> yaa ngi dégg non il faut il faut il faut parfois nga am ay technique la léeg-léeg nga am ci ay ay professeurs yoo xamante ne wallahi sa giiru dund doo leen fàtte et d'ailleurs j'en profite pour <laughs> pour nuyu sama professeur Khali Seck c'était mon prof de télé ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar le grand Khali Seck de la RTS ak le grand Abdoulaye Dabo de la RTS ñu ngi leen di bégge bu baax laas ñëw ci modèle économique intégration du numérique de l'IA professionnalisation des formations contrôle qualité mu ne la réforme de l'enseignement supérieur moom la ñuy xool naka la ñu ko gën a mën a joyante ngir mu gën a mën a normal Vox Populi ñëw ci projet de dissolution bi tey loolu mooy actualité ci jeudi tey bi assemblée nationale la ñuy dem dina am de chaudes empoignades en vue foofuyee ci assemblée nationale comme mën nañ ko ci xaar 26 cas dont le coordonnateur euh, ñoom ñoo quitté kii nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall. Mm-hmm. Cheikh Touré Mandi Mori Cheikh Ousmane Touré. borom eh, maa ngi lay bu baax di la bëggee buxal. Mm-hmm. ginnaaw loolu ñu ñëw ci le témoin. mu ñëw ci dissolution HCCT CSE député yi euh, yu danoo nekk à l'épreuve de l'équation Diomaye tendance générale vers un rejet du projet de Diomaye ginnaaw le témoin on y va ñu dem wiu sport ñu waxtaanee ci Afrobasket U18 Afrique du Sud 2024 jouer ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise loolu mooy euh, bëgg-bëgg bi loolu mooy euh, yéene bi ginnaaw gi ñu ñëw ci yéene bi di record Iliman Ndiaye milieu Everton mu ne daal dinaa fexe lépp lu ma mën pour wane de quoi je suis capable Jeux paralympiques yi itam ca Paris 2024 euh, l'archeur Aliou Dramé tey jii incha allah moom lay compétir il sera en lice ñu koy ñaanal yàlla defal ko ci ndam. afro basket U18 on a parlé tout à l'heure ci wiwu sport bi temps nag lamb manqué na ma trop est-ce que xam ngeen loolu.

ah moom moom rafet na di lii moom tubaarkàlla di kontaan naa. wala micro waa États-Unis waaw moom kii moom il est magnifique. il est magnifique le gâteau est magnifique. merci beaucoup micro baa nga ca waaye xam naa ne nag ah kontaan naa de <laughs> maa koy remercier bu baax a baax a baax. ci five du côté des États-Unis ñu koy dégg. waaw yoo ko gën a nag fekke nga gato moom. yow de tey wax nga dëgg tey moom alaaji. démb fekkee woo nga gato soo fekke woo tey gën a nga fekkee. yow de. dinañ waxtaan ci dara. ah bii mooy pàcc bi. waa bi moom pàcc la moom micro bi si nekk. sa photo micro bi caméra. <laughs> mais mais mais il est sublime en fait ce gâteau est magnifique. je suis contente trophée YouTube bi ngeen am. voilà ah. ñun ñu waxatu faam ñu kontaan nañ dañuy lekk ci gato bi tey. nee ñun gâteau bi la ñu bëgg. Eh. <laughs> ñun gâteau bi la bëgg ah le grand juriste ñëw na tubaarkàlla. Euh, Cheikh Ousmane Touré. waaw. luy sa projet lekk sama gâteau bi. léegi may góobloo ci gâteau yi du ma ko fekkee. <laughs> waaw léegi <laughs> toogal bu baax toogal bu baax toogal bu baax toogal bu baax ah, orienté sa micro bu baax. Mm-hmm. orienté ko orienté ko. nga ne luy sa bëgg-bëgg. lekk gâteau bi. bar gâteau bi. <laughs> bii nii bi toj sa xel mi dafa nekk ci gâteau bi. yow Nabou sa xel daa nekk ci gâteau bi. gâteau tufaay. am sa xel nekk ci dama ci lekk. far yow ngoone Sall la nga bëgg a lekk ci gâteau bi. non dama ko bëgg kii maa bëgg tàgg tàgg yi jëlee. jëlee barki Serigne Bamba yéen xaar rakkaaju eh, eh, leen eh, sax dem naa ak sama gâteau. eh eh kay foo jëm. damay dem ak gâteau bi. foo dem ak ñu yendu jàmm ba suba sax. kay fii ah. hmm. Hmm. am Cheikh ma appoo micro bi. Cheikh Cheikh am naa ngoon ma jegal ma ko nii. neexal leen ko du ko fi teg ñu dugal ko ci frigo. merci. am ba ci ko soxla du moom moo leen di woo pour gato bi jóg mami demal leen <laughs> ajaratu mami merci euh, pour yooyu ah, sama gâteau bi daa rafet yow euh, alors niñ leen ko annoncé woon ce matin laata ñuy ñëw ci cas sur cas euh, Pape Ahmadou lañu